du musiba xam nga bo nek ak sa kilifa. Mhm. Euh, des fois do ànd ak moom ah. man li ma gëm sama conviction moy mhm. bokku ñu gis fi ñu tollu ni mhm. mais mais il le met à l'aise il le met à l'aise c'est-à-dire yow ya ma ci dugaloon. wax ñi dem na ba tollu fi nga xey dakh ma ci li nga ma dénkoon ci parti bi. waaw deuxième vice président ki la dakh ci lolu kay. su la mënon dakh ci gouvernement bi jour bob do do fa yendu xam pour man il a juste tiré la conséquence. c'est un homme courageux. et pour moi qui a un avenir politique.